président Amadou Ba dinañu romb de loin de très loin li le président Macky Sall amoon xam nga lu tax. ah non gëw ma ko. kon xam nga lu tax. waaw parce que le maître ci a bien travaillé l'élève peut le dépasser. Ah je pense que le président Macky Sall dans ce sens il a très très bien travaillé. aujourd'hui man mi di wax yow musuma votel ñun waa coalition jot na man ak musuñoo votel Macky le président Macky wax nga ma ko léegi léegi yokk bi ngeen di yokk jàpp léegi ñun non seulement dañuy yokk waaye dañoo créer benn ax ax ay leader ax ay kilifa yoo xam ne dañoo nekkoon ci cabinet la président euh, euh, à la primature président Amadou Ba créer benn plateforme bu mag boo xam ne ne plateforme boobu képp koo xam ne ne bokkul ak GPS 5. waaw moom laa GPS cinq bi. waaw mooy plateforme pour le pour le euh, grande plateforme pour le soutien de Amadou Ba cinquième président loolu la signifie gp cinq boobu ñun dañu wax ne suñu rôle aujourd'hui lan la mooy dafa bëri ñoo xam ne ne bëggatuñu wax dégg waxi benn bokk yaakaar dafa am ñoo xam ne ne bëggatuñu dégg waxi APR ñooñu mais bëgg nañu ànd ak le président Amadou Ba te électorat bu APR c'est un acquis loolu dañ koy bàyyi ak waa benn bokk yaakaar parce que ñun mosuñoo bokk benn bokk yaakaar mosuñoo bokk euh, ci plateforme benn benn bokk yaakaar bokkuñu APR jot na. le président Macky Sall lañ doon euh, jàppale trois mois lañ ci teg après moom mu ne dematul élection jël tànn la euh, candidat Amadou Ba ñun ñu gis na ne Amadou Ba c'était c'était vraiment le candidat idéal mais dañoo gis na ne ñun organisation bi ñu teg dañuy dem waxtaan ak sénégalais yi nga xam ne ne ànduñu woon démb ak nekkuñu woon ci ci ci électorat bu bennoo ñooñu buñ ko jëlee mhm. mais ñun dañ ne tey dañuy fexe ba lu bennoo am ñun à côté waxuñu nag mën nañ ko am mais buñ ci amee benn pour cent mbaa ñu am benn 10 pour cent sax ñun suñu jaañ wàcc na. aujourd'hui l'avantage du du candidat Amadou Ba c'est quoi c'est que Amadou Ba. après nga wax ma les désavantages alors. les les les les les non non xam nga les ay points faibles. xam nga te loolu boo ko reconnaître rek naroo ko jaxase. waaw mais est-ce que mën naa laaj dara ci Amadou Ba waaw mais mais mais sëñ bi est-ce que doo bàyyi. waaw waaw non mais débat la bàyyi ko sànq sànq dugg nga tuuti. sànq dugg nga mais dama nekkoon ci benn élan mënoo nga bàyyi ba ma pare. non c'est juste waaw léegi léegi day après mu continuer c'est quoi la question. Euh, peut-être elle la réponse il la réponse li ma bëgg xam nga Amadou Ba dafa wax ni il assure la continuité. waaw loolu la wax. damay laaj ndax Amadou Ba il assume l'héritage de Macky Sall loolu laa bëggoon est-ce que. waaw d'accord d'accord Gaoussou boole ko ci sa tontu boole ko ci tontu yi. xam nga aujourd'hui euh, ñun sunu objectif mooy lan mooy fexe ba nga xam ne ne ñi àndul woon ak sunu candidat ñëpp Sénégal ñu dem ànd ak moom mais loolu pour mu am. loolu defe naa 100% lay am. non boo déggee ma ne la. loolu ñi àndul woon ak moom ñëpp. waaw ñi àndul woon ak le président. ah ci choix bi. ci choix bi ok d'accord. ñoom ñi ñëw. parce que dafa bëri ñoo xam ne ne ay frustré lañ. waaw ñoo xam ne ne dañoo dem ba ci biir ñu toog ñun tey dañoo organiser wu ba nga xam ne département bu ci ne par exemple man département bu Kër nañ ba tous les opposants yi demoon élection locale ak ñi demoon élection législative kenn rek lañ moo ñu ci ci Idriss Seck mooy Assome Assome Diatta. <laughs> mais mais mais ñeneen ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci yeneen parti bokkoon ci yeneen mouvement fexe nañ ba ñoom ñëpp. di dugal leen di teg leen ci benn organisation boo xam ne loolu dafa am ñoom ñoom sax ñoo njëkk a teg loolu ñu tuddee ko FAIRE waa FAIRE ñu rejoindre plateforme boobu